est-ce que Ousmane Sonko euh, est-ce que. ah nit ku yeewu la nit ku yeewu la ku xam fu mu jëm la. non euh, yenn saa ay nit nag dañuy jàpp ne parce que bon il est courtoisième ak reetaanam ak yooyu nit bëri dañuy yaakaar ne bon mën nañu teg ay affaire il comprend il comprend. mais Ousmane est-ce que Ousmane Sonko percevoir na euh, enjeu bi. Ousmane Sonko est d'une moo ko waa waa waa passé oui. mais le wax naa la le problème ne se pose. non ma ne est-ce que gisee na ah, certainement gisee na est-ce que gisee na mbir mi noonu. nekkul doxul ba yegg si fi mu yegg si nii euh, pour euh, pour bañ a am la vigilance politique. parce que moom moom nekkul ci affaire élection moom dafa poser des problèmes yi tax moom. mënul dem dialogue ak Macky Sall non non cest pas le problème. xam nga tey dama la wax benn affaire tey gis nga toute la situation là bu ñu nekk du dund Macky Sall mooy problème bi le problème du Sénégal c'est Macky Sall. moi je veux dire les choses clairement. il y choses yoo xam bu ko defee suba suba dëkk bi yëpp am jàmm. c'est-à-dire. du ma candidat je on modifie les articles vingt neuf trente et euh, vingt neuf e neuf trente trente et un et cinquante sept du code électoral bu ko defee suba tout le problème là. mais loolu règle problème Ousmane Sonko. si ça règle le problème de Ousmane Sonko. non règle ça de Ousmane Sonko. xam nga lu tax lan moo tax. bu boobaa sax gis nga problème bi sax dawul woon yegg si fii xam nga un problème de diffamation bu fi am. xam nga jagul mobilisation bii ci mbedd bi le problème c'était pas une plainte pour diffamation c'était pas ça le problème le problème c'est que boo demee ñu condamné la pour une plainte pour diffamation après ñu appliquer les dispositions 29 30 31 et 57 du code iranien doo nekk candidat loolu mooy problème bi et je le dis clairement deux fois yi nga xamante ne dañoo condamné Ousmane Sonko devant un tribunal ñaari yoon yëpp yëpp laa wax c'est l'État qui est derrière la condamnation c'est vrai ñaar yëpp le mooy décisif bi tax Ousmane Sonko perdre ses droits devant le tribunal procureur moo ko génne donc l'État moo ko génne si tribunal. mais xam nga tax man la réglé wu Ousmane Sonko. oui Ousmane Sonko bu cette procédure là demee ci cëppaandaw ba. te dina dem ci cëppaandaw ba balaa ñuy dem ci élection yi wala dans les jours à venir il est radié. du fichier oui tax ma lay expliquer. donc ça règle pas le problème de Ousmane Sonko si ça xam nga lu tax mu règle problème dama lay rappeler nag kaay mu wax la loolu mooy coow li. gis nga bu ñu bëggee dindi kaay waat la Macky Sall dem ci article cinquante sept yokk ci mot électeur ne bulaa ngaa nekk éligible da ngay doon électeur boo amee condition yii mënatoo nekk électeur ñu dugal électeur ci cinquante sept article vingt neuf trente trente un ñëw si biir ne bu ñu la condamné jusqu'à tel ci per tes droits pour cinq ans bu ñu la condamné jusqu'à tel tu perds définitivement tes droits politiques au Sénégal disposition bu ñu ko dugalee dans le code français le conseil constitutionnel da ko annuler en disant lu tax ma koy annuler mooy bu boobaa da ngeen di appliquer nit benn peine boo xamante ne kenn décidé wu ko si ab tribunal principe de l'individualisation des peines ñu dindi France fii loolu la ñu bàyyi ci biir code bi Khalifa Sall bu mu demee tribunal kenn déchoir ko de ses droits civils et politiques. Karim Wade kenn def boo si Karim Wade sax c'est plus grave parce que Karim Wade. moom le procureur dafa demander le au juge mu déchoisir ses droits civiques et politiques juge bi ne man xool naa loi Sénégal gis ma fenn fu may permettre ma ma dindi ko. donc Sidiki Kaba dafa génn ne. exactement Karim Wade n'est pas déchu de ses droits civiques. exactement on est allé maintenant passer par le code électoral pour tere leen ñu nekk candidat donc Ousmane Sonko son problème ce n'est pas le procès. il peut faire le procès ko bu ñu woon les articles là yu nekk ci biir code bi il va C'est pour ça que quand Khalifa est devant le Premier ministre, euh, devant le président de la République, il lui dit je veux qu'on supprime les articles 29, 30, 31 et 57. moom bu dee kaaw Khalifa Kassé il nous faut une amnistie amnistie rek na problème am mais day bañ ñu ne ko amnistie mais askan bi <laughs> dañoo au début dañ doon wax amnistie au tout début de yeewi askan bi quand le flirt était au au summum là on disait il faut amnistie il faut une loi d'amnistie bi ñu commencé poser le principe de la loi d'amnistie beaucoup de gens au niveau de Yewwi Askan nañu ne soxlawuñu yeew euh, loi d'amnistie nañu juste euh, ces dispositions du du man depuis qu'on a commencé à dire euh, kii amnistie j'ai toujours dit man d'accord ma ci amnistie et j'ai même écrit pourquoi d'accord ma ci amnistie donc le problème effectivement ne wax naa la ne la du problème mu procès bi c'est-à-dire moo tax souvent ñun dañuy mener beaucoup de débats yoo xam duñu gis implanté mais qu'est-ce qu'ils font des amendes des des amendes oui non c'est-à-dire ça la disposition bu ñu nekk c'est dans le sujet du dialogue d'ailleurs je veux pas dugg ci. Euh, ci ci bu euh, ñu bu ñu modifier juste les articles euh, du code électoral non c'est-à-dire xam nga xam nga xam nga la seule chose qu'il faut retenir c'est que au fond ce n'est même pas le fait que ñu dindi code bi wala déet condamnation ak yooyu c'est pas ça le problème mais le le seul problème c'est que il ne faut pas que nga am une condamnation ba naan da nga war a a fay lii dem tirer si une conséquence administrative ne comme am nga loolu waratoo nekk candidat donc tout le contentieux là ne reste c'est pas le problème mais il faut pas qu'on te dise que parce que Ousmane Sonko def na quelle est la relation qu'il y a entre euh, euh une diffamation et une candidature à une élection présidentielle yow mën naa la diffamer gis naa fi sax ñu def le nga ne da ngay porter mais je peux me tromper sur toi et de bonne foi et donc c'est parce que je me suis trompé sur Maïmouna Ndour Faye wax benn déclaration moom mu porter plainte on me dit non tu beneen danger bi sax mooy

Maintenant, si on nous dit, nous, le dialogue, vous posez tous les problèmes, il faut aller au dialogue et tous les problèmes. Maintenant, si nous, nous, on quitte le dialogue et on les laisse avec le dialogue.